السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلتي سبي شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وهدية الرسول بولم جلتي أدنبي يب نيغلين دي نيو دي لين زياره dilen balu baalu te dilen leen ñaanal yàlla te di sàkku ñaan ci ñépp yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq defal ñu sutura aduna ak laaxira ñu ñëw ci suñu ñaareelu dars biñi jàng dundu jaar-jaaru مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني الشريف الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه saqaana allahu min baxrihi bi acdami kuusi wal awaani maa ngi ak yéen démb ci wax leen askanu mawlaana cheikh sidi ahmed tidiane ànd naa ak yéen ba fi ma àggee ci fatimata zahra binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di wane ni moom Cheikhu Tijaani maamam yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wax na ko ñetti yoon ni ko yow sama doom nga ci dëgg kararaha sallallahu alayhi wa sallama thalathan anta waladi anta waladi anta waladi xaqa kon Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane bi ko loolu leeree nañ ci ngay gis nag su dee bind lettre am sax dafay bind Ahmed Tijani al Xasani nga dégg ci mboolem baram xam-xam yi ñu ngi nongul Cheikhu Tijaan ni moom mii kat sëtu yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ni mu leeree ci suñu waxtaanu demb kani la ka dooree ci baayam Mahamad ibnul Muxtaar boo ko toppee daf lay yóbbu ba ci nafsi zakiya nga gis ni kon dangay wàcc Abdullahi al-Kaamil Xasan al Xasan as-Sibti nga jëm ci Xasan as-Sibti mooy doomi Fatimatu bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñu wax juddug Mawlaana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi ma junjoon ci aama chanaq kon mawlidul xatmi baat boobu rek su ma ko waxee ñu bari danañ wax ni ah, kooku Ahmed Tidiane la Cheikh na yi kañ la juddu ñu ni Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane mi ngi juddu gannaaw gàddaay gi bi mu amee junni at ak téeméer ak juróom fukk mille ci gàddaa yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ci la mawlaana cheikh sidi ahmed tijaani gane àdduna nga dem ci tijaanu bnu baaba ci munyatul murid bul fatani سيد العرب بن السائح مملا لا شرا تديك بغية المستفيد من حصل مفخر العلا حين ولد بعين ماض ذا بفضلها شهد خول الماء بيت بيه nga xamante ni moom bayti bi kese boo xoolee li muy firi waaye nga xool li nga xamante ni moom la ci boroom muniya làq da nga yéemu ci yàlla ni dëgg-dëgg daal Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane mooy kiñ wut mooy kiñ doon xaar xasala amee na mafxarul ulaa puukare bu kawe xiina wulid jamono ba nga xamante ni judd na bi ayni maadi ca dëkk bu ñuy tuddee aynu maadi daa lii bi fadliha ci nganeelam shuhid moom la ñépp seede moom la ñu xam moom la ñu gis léegi nag حصل مفخر العلا بوكو ديشيفري دفلاي جوخ 1150 بيغا خامتني موم لا نيو واخني تي لا مو مولد الختمي تولول مولد الختمي دفا ام بن ولي بو مك بني وخ العالم العلامه الرئيس سيد الحاج عبد الكريم بنيس دفع أم بن بات بومي وخنان مولد الختم مبقي نان عند نيب نخول بات مولد الختم بو دشيفر مولد الختم دفلي جوخ 1150 lan mooy mawlidul xatmi mooy juddug borom xaatimul wilaayati moo tax mu ni bi xisaabil jummali من غير مراعاة الألف لعدم ظهورها في اللفظ بفكنتني دنگا حساب مولد الختم ألف بنك دوكو لما عليه ndax xoolal boo dee jàng alif bi boo jógee ci daal bi dangay ngay dal ci laam bi danga koy waslu loolu ñakk gi alif gi ñàkk feeñ moom la wax ni li adami zuhuriha fi lafdi boo koy wax doo ko tuddaale moom alif boobu léegi nag nga yëg ni kon mbooleem ñi nga xamante ni tey xam nañ baatu mawlidul xatmi lu muy firi mooy juddug mawlaana cheikh sidi ahmed attijaani radiyallahu anhu wa ardaah wa anna bihi amin boo demee ci imaami sukayri ji radiyallahu bamu déggé wax jojje rek def ci sad ay bayt mune mawlidul khatmi لكمالات التجاني ضمنه معنى بليغ قاله أهل المعاني ماتوك الشيخ سيدي أحمد التجان جيمو وناني موم mooy borom xaatimul wilaayati dafa feeñ ci wax ji buñ ne mawlidul xatmi borom xam-xam yépp d'accord nañ ci ni abul abbas mawlana ahmed tijaani radiallahu anhu moom moo jud juddu ci at boobu woote wilaaya gu rëy gi nga xamante ni woote na ko mu tolloog mille cent boroom xam-xam yi taalif nañ ci wax yu baree baree bare comme ni ngay gisee mawlidul xatmi jaa min gayri waxid taaba xayan wa mayitan duuna jaaxid werante amul kani cheikhana sidi ahmed tidiane lu jiitu muy juddu sidi al arabi alxaatimi ci téeréem boobu ñu tuddee alfutuxul makkiya ak معنقا ومغرب دفتي دون ليرال ولي يبين قمنتني مو تج ولايتو مومو يكين قمنتني موي خاتم الولاية دادي تي جنجنك مولانا الشيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه ndax mom comme ni nga xamé sidil arabiy bamou bina khatamal wilayata fantahat dafa am lu ko feeñu mu dégg ay baat tu haatif ñu ni ko laysa laka ma tamannayta li nga njort yaakaar ko du noonu demewul noonu mu ni nan la demee ñu ni ko borom maqaama bi ci aaxiru zamaan lay ñëw mu daal di gëstu nag ci baatin ba yàlla xamal ko mawlaana cheikh ni ko nag kii borom maqaama la boo xamante ni dañ ko war a nëbb kon amoo droit nga feeñal ko moo tax moom mu daan junju rek ndeysaan eh, di wax naan abul abbaasi ba tudd faas ni fa la war a dëkk tudd chanaq ni ci la war a juddu waaye loolu yépp nag day wane rek ni mawlaana cheikhana sidi ahmed tidiane mooy borom wilaaya bu mag bi nga xamante ni mom la ñëpp d'accord ci ni mo yore khatmul wilayat bo deme tamit ci bat bi mawlidul xatmil maktuumi yaxiqu bi ayni maadi nga xamante ni الشريف الأصيل سيد العربي المحب moom aljalil wax na mu ni ahmadu tijaani sayidul awliyaai wa ahmaduhum lillahi azalan baat yi yépp ahmadu tijaani moom baat bi kese boo ko xoolee daf lay jox 548 sayidul awliyaai wa ahmaduhum lillahi azalan booleen boolee ñoom ñépp daf lay jox mille cent cinquante loolu mooy lan mooy Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mooy sangu mbooleem walu yu yi loolu kañ la tàmbale muy jamono ba nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala ca azal ci la nekk di Ahmed ci la ñeel yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam mu jox xatmul wilayati mawlaana cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiallahu anhu moo tax baat yi il faut que ñu mokkal ko ñun taalibe tijaan yépp ndax mawlidul xatmil maktuumi yaxiqu bi ayni maadi benn أحمد التجاني سيد الأولياء وأحمدهم لله أزلا نعم حصل مفخر العلاء نت مولد الختم ñeent ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni boo duggee ci kutubu tariqati tijaniya ci da ngay fekk baat yi benn bu ci nekk dafay wane ni Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mi juddu ci 1150 1150 bi li mu jàpp mooy wane ni mooy xatmul wilayati te dafa yey ci moom moom mi nga xamante ni moo juddoo aynu maadi mu nekk borom xaatimul wilayati wax naa la ni la borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu baree bari taalif nañ ci ku mel ni imaam Sukayri ji nag tabaarakallahu yàlla nañ ko fayal nga xamante ni hujjala xujja la xujja la bu dëgër ci tariqa bi boo demee ci téeréem boobu mu tuddee kashful xijaab di nga fekk mu wax ci mawlaana cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci juddoom bi lu baree bari leeral ci lu baree bari fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin indi tamit abyaat yu bari yoo xamante ni moom moo ko taalif ngir lan ngir wane Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu góor la goo xamante ni góor gu rëy ay mayla la ci bisu juddoom rek wane na ni dëgg-dëgg at bi mu juddu wala yu judduwu ci woote maqaama bu mel ni maqaama bi Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane woote radiyallahu anhu وأرضاه وعنا به آمين وحنا لنلين مولانا الشيخنا سيدي أحمد تيجان أم نأيمك أم نأيرك واي أك درجة ديال جوخسين فامي نأيمك بايم نيو جانغي ديمبو سوني لسوني أي شرفاء لين ñu tedd lañ ay boromi xam-xam lañ bayam sang la bo xamanteni bu ñépp xam la bu ñépp naw ci wilaya ak ci xam-xam motax ñu ni amma waliduhu fa huwa alalimu alkabiru alwaliyu alshahir sayidi mahammad fathan mahammad man sama kalaas gi ñu bari da ñaan Muhammad waaye baat bi Mahamad la ibnu Muxtaar ibnu Ahmed ibni Mahamad baayam ak ay maamam dañ leen xam ci ñu nekk ay boroomi xam-xam nekk ay wali yu siiw yu mag yaayam وأما أمه فهي الولية الصالحة ذات التجارة الرابحة السيدة عائشة بنت الولي الجليل أبي عبد الله سيدي محمد بن السنوس التجان المضاوي رضي الله عن الجميع يا يم كم ko waxee woon moom waliyu la boo xamante ni di sang di ku sel di boroom commerce bi nga xamante ni nag tonu na tuufu na ci commerçant boobu ndax sang boo xamante ni aïchatu bu mag ñu koy wax abi abdillahi saydi muhammad muhammad ibni sanusi al tijaani euh, al madawi صاحب المنيا دا فاي واخني بروم منيا موي تجان بن بابا مني ما انجبت خود من الغواني في كل ما مضى من الزمان كمثل ام شيخنا الرباني عائشه الطاهره الحصاني جيجين مسول جور غناو بي صحابه ndax mbindeef yi yàlla daf ci tànn ay yonent ñoo gën ci li yàlla bind yonent yi nag ba ñu jeexee yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëw yàlla da koo tànnal ay saxaaba saxaaba yi ba ñu demee nag ba jeex ci kaw suuf si jigéen jurul ku mel ni Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane moom la borom mun ya judd junj maa anjabat xawdu min al gawaani jongama yi jeek yi jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci néegu sëy yi di sëy kenn julul ku mel ni Cheikh Sidi Ahmed Tidiane fi kulli ma mada min alzamani ba saxaaba yi rombee amul benn jigéen bu jur ku mel ni cheikhana Sidi Ahmed Tidiane moo tax mu ni ka mithli ummi cheikhina rabbaani aïchata tahirati alxissaani moom ab sharifa la comme ni ko ñun ñëpp xamee waaye nag ah jaamukatu yàlla la woon ku sell la woon ku tedd la woon ku baax la woon yàlla may na ko nag doom joo xamante ni bi yeb ba aduna bi daj amul fenn fu l'islam bi ag ludul tariqatu sheikh Sidi Ahmed Tidiane àgg na fa radiyallahu anhu wa arda kon ki deug deug li wax ni yaayam ligeyna deug deug yaayam ligeyna radiyallahu anil jami' kon su ko defee خمنا ني مولانا الشيخ سيد احمد تيجان تفهمي بو تد لا بوك موتاخ درجه دي مو ام مقام بي مو ام مو ام كو كون ددنا تي فامي بو تد يالا ماينا كو لم كوي ماي كون داني نيو ان شاء الله تعالى دوغ اك يين تي بروغرامو جانغوك القران مولانا الشيخ Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu wa ardaahu kooku nag yaakaar naa ni dañ koy def beneen émission ngir nekk beneen waxtaan mu nekk beneen jàng ndax euh, njàngam Alqur'an. dafa yéeme yéeme goo xamante ni ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel te comme ñun ñu ngi dundee alquran di dundal alquran suba ak ngoon guddi ak bëccëg war nañoo xam suñu sëriñ bi te Mawlaana Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane naka la jàngee alquran ak kañ la eh, jàng alquran kañ la mokkal alquran ci ban riwaaya la ko jàngee kan ban sëriñ la ko jàngee ñooñu ñëpp incha allah taala la ñu bëgg indi suñu waxtaan bii di ñëw bi xawlillahi wa quwwatihi زياره نك مبولم جلتي مبولم خلفاء الشيخي فني من نك تي في تي سنغال سيدنا سيدي عبد المطلب اك فلتا الجيري فلتا فاس سيدنا سيدي آه، زبير ak mboolem xulafaa cheikh yi cheikh alxaaji omar ibnu saïd al fouti yi njabootam njabootu maam alxaaji abdallahi ñes al kawlaxi njabootu maam seyd alxaaji malik ak mboolem xulafaa yi bàyyiwuñu kenn ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen dokkeel di ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mboolem taalib tijaani fu ñu mu nekk ci àdduna bi yal nañ yàlla saxal ci tariqa bi rey ñu ci tariqa bi dekkal ñu ci tariqa bi ba beneen émission inchaa allahu taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu